amaat mbégte ak kontaante moo baax di leen bëgg tey nag maa ngi Thiès benn dëkk ñaari gaal capital di raay su ma nee Thiès sa xel day dem ci Lande Ndiame su ma nee xel Thiès sa xel day dem ci ay ndaanaan nga xam ne fii goxul làmb la tey ma seet si fi ay ndaanaan Modou bu Thiès Modou Anta ndaanaan bu mag bi champion bu mag bi laa fekk si mu am bis bu rëy nag promoteur bu tëgg ko muy Gaston production ñu ngi koy ziar di ko bëggee dinañ waxtaan ak moom si làmb waxtaan ak Laay Goote champion bu mag bi moom moo doon Lande Ndiame maa ngi lay ziar la bëggee. oui maa ngi di sant yàlla bu baax a baax a baax xama di julli ci yonent bu tedd bi di sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ maam Saliou mu sëriñ Cheikh Ngounda Fall eh, di nuyu <coughs> supporteru Modou Anta yëpp di nuyu waa Dakar waa Médina Médina xam nga waaw waa Médina xam nga. Médina jën kayre bu ma nuyoo ba noppi ji doo ko dugg ci jën bi yaa may dégg. Ah. maa ngi waa Médina xam li ma expliqué. waaw di nuyu sama gars ma àndal fii nii xam di ñuy daal waaw mooy loolu. di ziar sama gars yi ku ci mel ni Ilimane Pape Fall mhm. ak laay suma rak di nuyu sa caméraman sa technicien yëpp di la nuyu bu baax a baax a baax waaw di la wax nga nga dal rek waaw dal naa Baye Fall bi nga fekk si quoi Baye Fall bi tamit moo la fekk si waaw kon sëñ Fallou waaw ñun ragaluñu loolu waaw mais gars na depuis 18 février 2018 nga ko fi gëj année balance yi bëri na yu bëri yaa doon moytu wala yaa bëggul bëri lu xew waaw xaarim xam rek àdduna moom jaam beeg pexem buur beeg dogalam hmm. ñun ay xale lan làmb lan yaakaar te et puis mënatuñoo doon leen lulul ay mbër parce que dugg nañ ci man xam ñu ci xam nga kon tey buñ toogee bëriwuñ rek eh, dadul suñ dadul loo xamante ni xam ñoo ko sabablu quoi suñu bëgg-bëgg la xañ na nag xam lu yàlla tuddoon la te et puis tamit mi ngi ko namee jeexal jeex na xam nga am nañ combat combat bu yàlla may ndam loolu ñaanal sa bopp dëgg doomu mbër mi nga am jën Diouf Kayre hmm. combat bi nag gars yi euh, combat bi ñu bari sax doon naan du combat ñu ne combat la am na ñu ne combat dër bi nga jël pour pourquoi nga jël doomu mbër bi xale bu metti bi ndaanaan bu mag bi. waaw xam nga bi mooy comme li ma rek xam yàlla dogaloon na xam moom doon na ko doon nañ ko démarché ay ay ay ay ay mois xam nga. ngay bañ mais xaj waaw. mais xaj na xam nga loolu lépp boo gisee rek xaj na app bee jotagul woon quoi. mais tey bi yàlla dogalee app jot eh, yomb na pour ma bëreeg moom. da waxoon dama la fekk si fii nga ne ma dinaa jël benn xale xale yi duma ci kenn bu ko defee ñeneen ñi bàyyi ma lu tax nga euh, njëkk ci jën Diène Kairé te am na yeneen xale yu fi bëgg. non mais xaj na moom la suñu borom tudd ni mooy suñu kom baa mooy taxaw ma ngi. xam nga Diène Kairé. xam naa ko comme nii rek comme ni comme xam naa ko comme nii rek muy bëre ma di ko seetaan ci télé wax dëgg yàlla loolu laa xam ci moom mais xawma loo xamante nii xama leneen la quoi xam naa daal nit ku correct la booy baax la booy bu yaru la daal. man kay dama la dégg léegi ngay bëgg a Medina te Medina moom moo ko mooy borom Diène Kairé ko moom loolu lu soyoon ci Medina. non Medina Diène moomu ko. ah doomu mbër mi fu mu Medina la dëkk. non yaay la mbëru gox la. non fa la dëkk kër lan fa am ñun ñu dëkk fa am fa kër. mais muy moom muy man kenn moomu ci Medina. ah dégg naa combat bi xew ba léegi nangatoo dugg Medina ñeme woo ko sax. man dimanche rek Medina laa nekkoon. da nga laaxatu kenn gis la guddi nga fa ñëw. Ah, man la man dama fanaan dikkee rek laa fay. dikkee man ma ñëw fa ngénte ñëw fa bëccëgu ndara kàmm xanaa su ma doon laaxatu du fa ñëw ngénte. dégg naa boo fa ñëwee te instant yi di am problème de. bàyyil dégg naa tey wax lu la leer nga ah, ba dégg naa réew mi moom instant yi dégg moo fi am. <laughs> dégg naa nag baaxul quoi na ngeen xool li tegu ak li nekk ju di ko teg dama laa bàyyi ay wewu bëy wewu nag dama laa seetaan signature bi nga ne ku amul la gënal am la fa sës lu waral loolu waaw xaarim xamaa sant yàlla bu baax rek agent yi sax combat bi du ma ci mën a développé lu bare ah, bare di nga ci wax de bañ a développé non xam nga ah. tax du ma ci mën a développé lu bare am na lu ma ci jot a wax te combat wax te combat bi dikkagul xam nga li ma expliqué kon tey li ci ëpp solo rek mooy ñaanal suma bopp wér di ko ñaanal sama adversaire di woowaa Thiès comme ni ñu daan mobiliser woo ñu gën a mobiliser wu combat bi di woo autorités yi fi nekk bonne volonté yëpp ñu ñëw teg ñu loxo ñu duy li ñu bëgg a duy yóbbu ko stade ba tey ñaan yàlla yàlla may ñu ndam quoi. ba léegi ñëw ko sama question dama la changé signature bi nga ne ku amul la la gënal am la fa sës. waaw loolu waxu xeebel la. non du waxu xeebel. dañ koo xeeb jéen mënu ma koo xeeb jéen champion la. jéen dafa def ay preuve ba agsi xamale wala expliqué yàlla dogal ñu war a bëre. comprendre nga. Hmm. waaw mais ñu ñëw pour neexal signature bi jaay signature bi mais nag xaalim fay ñu ñu tamit pour ñu ñëw foofu noonu di muumale. Hmm. te ndajam wax moom ku noppi bokkutoo. te hmm. keroog ndajam wax la moo tax ma wax. ndajam wax ku noppi waxoo man yooyu olof yooyu xaw ma. non non dama ne la wax. ku noppi bokkutoo. loolu des naa leer sama bopp. des naa leer sa bopp maanaam comme signature contrat lan ñëw tey jii nii pour ma tojal la ko. waaw lan ñëw xam nga li may te dañoo mën a wax dañoo war a mën a wax pour xama jaay combat bi moo tax ñu wax rek. combat bi amateur yu bëri na xaalis moo tax nga jël ko rek nga toog gëj a bëre ñàkk xaalis moo tax nga jël combat bi loolu danga nga koy dëggal non non lan mooy ay xaalis moo tax ngay toog nga ah. bëri ko man ñaar xaalis bëri bu la Gaston Fay moo tax non da nga may déglu ma wax la xaalis na mooy déglu ma del posé say question li ma lay wax te bàyyi ku toog ñaari at di lekk di naan di dund xamal ma benn bis ñu naan moo tax nga jël combat bi xanaa kon kon ma jël sama combat ak ama neex wala kon ma jël samay nag bu fekkoon damaa xiif kon ma jël sama yeneen combat man damaa régl démb tey soog a ñëw yaa may dégg yow bàyyil sa question yi nga am ay gars yi nee bu doon bu doon fekkoon damaa xiif kon ci ama neex laa jëlee sama combat ak moom mais ku toog ñaari at di añ di reer événement yëpp passé fi lépp jaar fi mais xaarim sant yàlla baax ñun bu ñu yaakaaroon lamb kese torox nan bu yàgg. Hmm. waaw. kon xaalis daal taxul nga jël combat ñaari at bëri woo koy da doon séntu beneen ay combat yeneen yoo xamante ni pas jën ngay rëdd ay combat yow bi ma fi ñëwee Sa Thiès nga ma wax nga bëgg a bëreel ak ñeneen ak ñoom Garga Mbossé nga ma nga ma si teel mais ñu bari bi ñu déggee jën kër dañoo am mbetteel promoteurs yi ñoo yor seenu xaalis tamit di tëgg. di def seen i choix. xam nga ñoom ñoo def seen choix tëgg nañ mbër yooyu noonu man maa ngi ci làmb ji yàlla dogal na suma combat ak jiin moom moo taxaw. eh ñu ngi koy waajal rek di ñaan yàlla may ndam. dama seetlu ne jéen kër daf la ñeme de ragalu la de te macha allah ku mën bëri la doomu mbër dañ koy waajal est ce que jël gi nga jël jéen kër est ce que du risque ci yow nag dañ waxante dëgg rek. àdduna lépp risque la. yow mii nii rek yaa ngi nii rek tey daj nga coono yoo xamante ni moom tey kay war ragaloon doo agsi waaw man Baye Fall laa rek waaw noonu la demee nag ñun nag fan jëm ragalul ko te xam nan ko mais yow da nga da nga ne combat bii combat bii nii Diène Kaïré mooy am lu mu ciy gagné man amu yow nee nga gagné woo ci dara loolu nga wax kon dèjà combat risque nga jël combat boo gagné wul dara loo koy jëlee waaw moo tax man la àddina lépp risque la xaadim xam nga ne ñun dañuy wax rek mais yàlla mooy dogal kenn ku ne nag sañ ngaa wax nag xaadim te déggoo li ma la wax sama biira nee naa la loolu dañ koy wax ngir jaay combat bi xam nga li ma expliqué néegul loo xamante ni sax dañ koy wax pour jéem a tuutal jën ndax jën moo ko tuutalee sans bopp laa non tuutul boo ko tuutalee mënul mënul tuut sax ndax doomu mbër bi la ñun ñooy mentaxaa ñun ñëpp ñun ñoo far ñun ñoo bokk day ñoo bokk bàyyi jën làmb moo ñu boole nii rek mais bu làmb jeexee xam nga dañuy kon ne waaw àndaat bokk nday bokk bàyyi du dëgg hmm. parce que xam nga ku xool ci xam nga suñu père Balla mi fi jógee nii rek yàlla na ko yàlla yërëm saa ko àjjana yërëm quoi xam nga di ko jaale Youssou xam ak doomam Mousse. xam nga di ko jaale famille bi yëpp quoi te di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana. la lii moo leen ne laam ñun ñëpp benn lan tey mën nañoo daje rayante mais bu jeexee jeex na. Mm-hmm. ndax tey boo xoolee événement yooyu bu amee monde laam ñoo koy daje. kon loolu rek sant yàlla la da ngay xeex wala da ngay bëre ak jël. waaw lamb ji amagul dat. waaw mais da ngaa da da ngay. non lamb ji dina am daj janvier lamb dina tijji. waaw yàlla baax yàlla leen ci yàlla yóbbu ak man bu bu tuuti laa lamb suma métier gars yi da ngeen di xëy di liggéey man damay xëy di entraîné ma sañoon kay damay bëri fois par saison. non gas dama koy ñaanal rek moom suma père la xamante nan maa ak

parce que moom fi ma taxaw bi ma fa gars yi fekk see rek ñu teewul. Hmm, foo taxawoon pour noonu la yow daal da nga ne mooy bëreeg booyee dañ may fay nga ma waxoon. kon déjà fay fay na fay na xaalis bi weex tàll jën kër jën kër ma fekk ko open press bi ma jël mu ne ma xaalis bi weex tàll amu fi. <laughs> man de sama bopp laa xam sant naa yàlla bu baax a baax man yàgguma man mosuma wax dara. non instant xaalis bi moom bëri na mu. mu waxoon xaalis caméra yi fay na waaw coono jiw xaalis bi bëri na. waaw ah, na caméra yi tax xaalis nga xam ak combat caméra yi. xaalis bi la nga ma waxoon moom la ma fay. yow benn ngay waxal. non non yow. <laughs> yow comprendre doo ko waxal sax. ndaamal Thiès nga ndaamal Kajoor nga. <laughs> kon daal la nga am nga ko fay. waaw sant am nañ lu hmm. am nañ lépp mais am am nañ lu hmm. tamit da ngay dem ba ji xam ne lamb tamit daa nekk ci crise ndax tamit promoteur bi combat bi fii nga koy pare wala da ngay dem réew ma ah xaaral man daal pour l'instant nii daal li ma mën a wax ci gàttal daal maa ngi fii maa ngi préparé ndànk ndànk suma combat maa suma staff ak sumay mbokk waaw maa ngi préparé ndànk daal lu ci xajit ñu def ko ci rek yor waay yab nga làmb la yor waat nga fa nga yor woon nag fii nga yor waat nii nag comme dab la rek non bokkuñu sax lu leen wutale non bëri ah bu xeex jën kayre da koy def bu dee bëre da koy def. non mbëri bokkuñu sax Yékini Junior bokkul ak jën kayre Yékini Junior ñun ñi sax moo ñu supérieur ci làmb. kon bi mu bëree da la mayoon sens. non ba dama mayoon sens kay. bi muy bi muy yow dafa tekkoon ci année balance jël la. waaw bi ngay bëreeg jën kayre da ngaa ay année balance jël ko. waaw. loolu wax waxi la léegi nag tëjal yàq bi amul junj tëjal yàq bi. carrément loo mooy junj wax ma laaj ma question bu ragal question bi. maanaam yi gis yoon dala ana bal la ana balance jël ma daan ma. waaw léegi jéem man ma ana balance jël ko pour nga xalaat pour jéem rëppal ma man. non pas pas xalaat mu rëppal non la bi bu ko ragal man ngay waxal. yaa ngi xalaat daanu daanu xalaatuma ko de. yow question bi nga wax yow. xam naa ne yow foofu nga jëm. moo tax man ko ragal na leer. ndam yàlla moo ko yor damay ñaan jéen day ñaan làmb ñaari ndamay dugg mais bennay génn déggoo li ma ñun dañuy wax rek sabablu mais lii am suñu borom moo koy dogal te noppi na te ñun ay jullit lañ mais sañ nañoo ñaan yàlla yàlla may ndam. non dama la Yékini Junior combat bu gën a maar adversaire yi te effectivement adversaire yi bokkul. bu dee xeex lépp lay def jën day bëre jën day xeex. lu mu gën a mën no xaw ma ko nag moom yàlla xam na ne xaw ma lu mu gën a mën dañu combat bi seetaan na ko moo Quench te Quench sax bëgg ndeysaan nee na moom waaw gis nga nee sax day day fecc waaw mais yàlla moo ko dogalul parce que boo fa moom am na combat moom double moteur waaw moo ko dogalul rek yàlla baax na man daal xaadim waaw yi nii ci phase bi ma toll mooy phase lan nga toll dajale Thiès Thiès gépp génn parce que kombaa bi suma combat la te daa am lu ma war a wone te maa ngi tàllal loxo Thiès waa yëpp képp ku dreetu Thiès nag di daw sa yaram laa la wax cent pour cent Thiès maa ngi lay woo suma koom combat bii nga ñëw jàppale ma ci yàlla may ma ndam ci suma combat bi mos na ma wax ne ma euh, xeex ak yow loolu daf kay neex. kan ci jën wax na ma ko ne ma xeex ak yow loolu dafay neex trop. waaw mais loolu mën na ne bëri dóor lan wax. bëri dóor lan wax. yow ñeme ngaa taxaw jën kay di xeex ak moom yow. non xaaral yow yaa ma dama lay laaj. non yow bii mun a xeexee yow da neex. non attends yow boo taxee naa ma ñeme nga. pour xeex ak Diène Kairé. dama ko gis ko mu xeex ay mbër duma leen. ma yaakaar na ñi mu wax xeex ak moom rek damay laajte fi kenn xeexuma kenn. waaw mooy waaye suma lamb daal du gàttal li war a def man koy def. loo war a def da koy def. waaw sama lamb sama lamb du soof. même bu ma dee daanu sax. non xam nga sa supporter lay seetaan foog nga xamal leen da nga da ngay xeex ak jën kay wala da ngay bëri ak moom lamb ji dikkagul samay supporter ñoom ñoo ma gën a xam mais jën kay nee na xeex bi da neex xanaa ñu ma ko fekk si xeex bi bu neexee la bu naa wax ne sax wala may duma mais dama ne la man doo ma wax loolu ma bëgg la wax samay supporter xam mais signature bi nga taxaw fii ne dama duma bëgg ñëwaat fii di weddi xam nañ ma wax di dellu ginnaaw mais bi da taxaw ne ko dama lay duma tey nga bëgg a ñëwaat fii bëgg a jënd moo tax man la ci début bi moo tax man la li ma waroon a wax ci combat bi am na lu ma jot nag dañ koy denc ba signature contrat yi commencé xaalim kenn du dem guerre naan ratatata say arme ngi nii lamb ji dikkagul xamaguñ kenn lañuy bëre jéen su fekkee yow yaa yógoonte xaarim ànd seek loolu doona ah, dégg naa ko waaw loolu mën na ne. te tolloo bu ngeen xeexee mu neex su ngeen bëree mu neex. waaw waaw. lambi ndaama la. waaw ndaamal match moo la sut nag yow ndaamal ndaamal loolu dëgg la. ndax tamit ku xool xam ne tamit suñu sorti mujj peut-être xam nga am na ay deb am na euh, liñ daan yóbbu. mbooloo mi xaw na manqué xam na xaw na wàññeeku tuuti quoi mais wàññeeku googu noonu nag maanaam du suñu coobare du coobare mbooloo mi kenn ku ne xam na ni dëkk la ñuy jóge ak dëkk te tamit fii yow xam nga li fi daw quoi da jàppale bi peut-être xaw na des tuuti mais nag ñu ngi sant yàlla parce que gis nañ beneen taxawaay boo xamante ne nii gëj nañ koo gis te am nañ ci yaakaar tamit ni combat bii nii Thiès kenn du fi des. yéen bu laamu amee du ngeen du ngeen ñëw Dakar du ngeen dëkkante da ngeen toog. dafa ngeen nekk daa xaw a lax pourquoi du ngeen ñëw Dakar wane seen bopp promoteur gis la waaw mais nag xaarim ñun am na beneen dund bu dul làmb kese kese kese xam nga li may expliqué bu ñu temps bi mayee pour ñu ñëw dakaar làmb dakaar dañuy ñëw mais nag bu ñu ko temps bi mayul tamit nag non munuñu tamit nii lu ni kundung rek ñu ñëw taxaw fa de déedéet mënuñu loolu xama te kon xama loolu munuñu ko en tout cas combat bu ñu war ñëw dakaar daal ñu am temps dinañ ñëw Dakar mais li ci am solo daal mooy Thiès incha allahu rabbi combat bi dinañ gis beneen mobilisation bokkul woon ak yu daan gis parce que Habib ñaa ngi fi te pare na pour moom lu leer la nee na Thiès ñaari nit la bëgg ñu des ci jouru combat bi muy paay ak maire yi. non Thiès gépp moom mun nga. kon xam nga kon képp kon arène nationale duñ koy tëj. non ar kon xam nga képp kuy seet non espécial nga jëm de. non loolu ah, man xawma lu nekk ci contrat xam ne loolu yow xam. xam nga da ngay expliquer coo jibul amul problème man naa am combat rek. di sant tamit suma grand Mamar Ba. Mamar Ba gis nga léegi këram la ay Ousseynou Diouf Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye doom mel na Falla. day jàpp ci sumay combat. maa ngi koy woo ci bi bu baax a baax a baax a baax xam nga da ngay expliquer Kan Omar Diop Omar Diop ah. moom Omar Ndioub aw ma fayam waa kër ma paate Ndioub yëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax. dama bëgg nga xool si caméra bi. xamal li may expliqué wax xamal yow nag maa wax ak Diène Kairé waxal ak Diène Kairé li nga war a def rek. man Omar Ndioub laay woo ci combat bi dina ñëw. mu ñëw jàpp ci combat bi Omar jàpp ci yaag Cheikh. ma def comme na ma daan def rek yoo xamante nan xamal li may di sant suma coach yi nag ku ci mel ni Pape Diop Maam Sa Ndiaye Diarra Dev aw ma seen fay di sant suma gars yi suma gaayam ñoom laa juddoo ndool yaroo ndool combat bi seen combat la te ñoom ñoo ma ko gën a bëgg di sant suñu waa igri di leen ñaanal ñi fi am combat yàlla may leen ay victoire ñun ñi ah, ñi tamit suñu borom may leen ay combat ñaari igri ñaari igri ñaari igri ngeen séparé est-ce que loolu nekkul du nekk jafe-jafe seen Thiès mbooloo ak bëgg sa waajur pourquoi a la wax ñaata igri ñoo fa ne mënuma ko bari na. te si pourtant bu ñu amee ko benn mbër bu ci amee combat yeneen mbër yi dañuy jàppale ko di contact. mais yaa ambulance yéen a bokkoon. non non waxuma ambulance yéen a bokk écurie dama ne la parcelle ñaata écurie ñoo fa ne. bari na bari na mënuma ko te mbër yëpp bokkuñu écurie. dama bokkoon fépp fu ñu jàngee métier mais jàng jàng xaaral yow nekkoon ci site bi. waaw waaw na nga bi dama ne woon ci site am na ci beneen site boo nekkoon te da waaw te nga jógee foofu yaa ngi woon kéwal gi yow li ngay transfert bari nga trop. waaw concurrence diggante ba kenn ba ambulance ber dara. Matar suma rakk la Matar ñoo bokk génn keppaar gu nu bëre mu beru dem man ma beru dem mu ngi mel ni yow ñaan nga yàlla te kër baay du kër kenn ku ne ñaan nga yàlla am sa këru bopp xaarim waaw bu problème amun da la koy wax mbala ma wax la ko xaari man du ma naa fekk lu ma gërëm ku ma deful dara Matar Mbaye suñu digganteeg moom bu ritaxul woon Matar sexalu ma lem moomu ma dama naa leen suñu diggante lii moo ci nekk man dépassé naa fu may toog di ragal kenn ginnaawam Matar suma rak la alaaji Gendé boo yooyu yëpp Thiès man aw ma fi adversaire boo yëpp samay rak waaw gis ngeen léegi waaw yaa ngi gis booy ku ma ci gisanteel ni may mel ak moom man lool mooy suma devoir ñoom ñëpp sumay rakkalaan man li ma man mooy xàllal leen ñu jàll ma gunge leen non bu coow jiboon dama naa la eh xaadim bul ma wax ci ñii laaj ma ci làmb bi laaj mii di bëre moo ko indi laaj dernier combat bi Mataara ko indi ah bi muy wax ak Mataar laaj bi mu soxlaa Mataar pour defal ko échauffement yëpp Mataar bi mu soxlaa laa bi man fële laa dem taxawi wàcc koog moom waaw kon gars yi nan bàyyi ay dégg naa kii dégg naa lee suñu diggante ñun waa Thiès jàmm rek moo fi am. Anta. journaliste yëpp kii ci gën a si kii ci gën a waar. waaw noonu la demee barke Serigne Ba mais kontaan naa ci nag. waaw ñoo far di sant bu baax a baax a baax waaw xam nga si jamono non mooy loolu. Garga 2 mu ngi nii mu ngi nii mu ngi nii Garga 2 Mama Lamine ñoo ko tëgg. waaw xam nga rek waaw alliance ko tëgg waaw mais lu jot sunu borom dina ko def laay moom mu ngi fi xam nga xale la xam nga li may expliquer bu yàlla dogalee combat am taxaw après mooy loolu waaw moo ko anti combat bu ci anti la desee loolu sax après laay dina ci wax mais man suma bis laa tal fi mu ni nii xam nga di woo waa Thiès di woo tamit arrêt Jakarta yëpp waaw arrêt Jakarta yëpp maa leen di woo xam nga waaw loolu nag xam nga maa ngi koy jël nag di ko teg ci arrêt Lamp Fall ñaa yaag booyi xoolal gérer leen Baye Fall baa ngi seen ginnaaw foo leen ko woor rek xoolal day ñëw njaw bu leen ragal dara ara yëpp nag ku lim nag day juum mais maa ngi préparé benn tournée incha allah rabi fépp jakarta maa nekk ak borom routier ak borom moto rek non mooy loolu bi nag ñëpp Thiès gépp maa leen di woo nañ ñëw li daan manqué lépp teew na incha allah rabi suma combat te bu neexe yàlla namoon ngeen ma mais maa leen raw di gërëm nag suma gaay baax jaaz suma gars yi maa ngi koy sant bu suma benn boy la quoi moom suma doomu ndey la Ilimane suma mbokk taalibe la ñoo bokk wasila ñoom Njolde Dame Lamine suma gars yi ñoom ñëpp ku lim juum maanaam Sall Sall justo borom France maa lay béggee Zayri eh, bulo lam-lam yow convoi yow laa ko jox waa are ngent Mourou Bane lam-lam Baye Cheikh Diouf bu kenn des kontaan naa trop di ko ñaanal wér di ko ñaanal suma bopp di ko ñaanal famem ba le jour ji incha allahu